nga juddoo kama kata manga yaroo chama kata manga jada ya Madina bis bu tedd ñoo ngi ci bis bu tedd ñoo ci bis bu yàlla gërëm ñu ci bis bu yàlla defal lislaam ndam dañu ne lislaam bu amee ndam mi ngi ko amee ci bisu tey jii bisu tey jii nga xam ne mooy bisu badar neex na dañuy woor solu ba jekk tëdd ci climatiseur naan ba màndi mbokk yi mbaa xam nga xare badar mooy xare bi jiitu ci lislaam xare badar bii mooy xare bu jiitu ci lislaam ndax buntu bii ma lay nettali su àggee di nga dégg maam Seex Sidaaji Maalik jugee na nee na yonent bi jugee na màkka dem medinatul munawara ndax kat dañoo waxoon ni euh, warxata ibnu nawfal mu ne woon yaa laytani kuntu fiya saliman jazaan wa kuntu xayyan ladal ixraaj mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa wooteem gi du mat mukk di ko wax xadija ne ko sa sa borom kër gi wooteem gi du mat mukk lu may dafa dem génn dëkk bi bi mu génnee dëkk bi dem medinatul munawara li waral xare badar mooy yonent bi dafa jugee Makka bi muy jugee Makka di daw dem Medina bunt bi dina ko wax duma ko anticiper jugee Makka di dem Medina da doon dajale ñaar ñaar di leen gàddaayloo ci suuf ñaar ñaar la doon jël di leen gàddaayloo ci suuf bu jëlee ñaar ñi gàddaayloo leen jëlaat ñaar ñi suba gàddaayloo leen discrètement kon ñoo ñu di gàddaay ñu yóbbu seen alal ñoo ñooy muhajirin ñooñu yóbbu seen mënuñu yóbbu seen alal bàyyi fa seeni i alal alal gépp ñu bàyyi ko fa topp yonent bi ndax lislaam jaral na leen ko ñoom ñëpp nag ñu demee nag ba toog nag ba kaase ci la yàlla na yonent bi am nga sañ-sañu dem màkka mbaa dogaale waa màkka nangu seeni alal li moo indi xare Badar ndax yonent bi dafa kar abu abu Sufyaan dafa yebal gaa yi gaa yi kar leen dem nanguwaat alalu waa màkka sàccu leen tafuwu leen agressé wu leen déedéet daf leen kar nanguwaat ay alalam ndax yàlla moom moo ko digal ne demal nangu say alal yàlla wax ko xareel de daf ko ne demal nangu sa alal Moustapha kar njëg bi njëg bi doon romb waa Màkka yi mu kar leen nanguwaat alal gi mu moom delloowaat ko seeni borom mooy waa mu muhajirin ñëw nañ bàyyi nañ fa seen alal waa Màkka ki deppe seen alal di ci def lu leen neex jël ko di jënd di jaay mu dem nangu alal gi sañ na ko mu nangu alal gi gaa yi ñibbi wax ko nag Abu ne ko sa doom ja gàddaay na waaye yemu ci mi ngi cokkaas cokkaas bi mooy sunu alal yi nangu na ko ma ne leen yéen a ñeme yàlla alal gi moo ko moom ñi mu àndal ñoo ko moom moom yëfam la nangu léegi nag gars yi nag takk xare bett yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boobu jullit ñaa ngi nekk 313 313 yéeféer yi ñi ngi nekk junneeg lu bi moom la nit ñi bañ a la nit ñi bañ a juumee rek waaye la ñu ci soldaar moom ëpp na moom junni moom waaye jullit yi nekk 313 moo tax chiffre 313 nga gis mu bëri doole ci lislaam si gàttal yonent bi sallallahu alayhi nekk na màkk mu tombeek weeru koor ndax bi mu defee ñaari at medina ci la ko yàlla farataal ci moom koor ñetti at ci la xare yi commencé ñaari at yàlla farataal ci moom koor ñetti at xare yi départ noonu lay xare di xaree di xaree di xaree di xaree ba huitième année bi ci la xare ya jeex kon trois ans nga dolliwaat ci cinq huit la lay jox kon xare naa ak ñoom juróomi at ci lu bëri ñi ñu wax yeneen bi nangu na ay alalam waa Màkka ñëw nañu nee nañu dañuy nangu seeni alal ñoom ñëpp nee nañu dañuy jëlaat seeni alal parce que yeneen bi daf koo nangu par force duñ ko may dara nañ ko bett ñu bett ko ci jamonoy koor jamonoy mbóoya mu metti lool waaye alaaji Malik alxuraan dafa ne fadribu fawqal ak naaqi nee na fadri boo aj dañ leen aj daan nañu naawee fawqal ak naaqi yàlla jël ay picc ay malaayika di leen teg ci kaw laafu picc yi gis nga moo tax mu ne fadri boo doon nañu naawee fawqal ak naaqi ci kaw laafu malaaka yi malaaka yi ñoo doon naawee ci kaw laafu picc yi picc yi ngande tàllal mais invisible la doon picc yooyoo wàcc dimbali yonent bi avant loolu de travaux d'équipement et de prestations diverses ETEP à votre service pour tous vos travaux dans tous les domaines nous avons une compétence très large en génie civil bâtiment et travaux publics terrassement hydraulique charpente métallique menuiserie métallique et ce n'est pas tout nous avons une qualification sur le domaine de la menuiserie aluminium dans les ouvrages d'art nous sommes les meilleurs la tuyauterie industrielle l'électrisation industrielle construction de plans en archi et plans en 3D étude de béton armé nous sommes situés à Dakar contact 835 26 46 ak ou bien à au 77 544 e e la qualité de votre service en main. والله لقاد الأمان وكرد من سلمان tawassalna asalaamaaleykum sunu mbokku jullit yi ci biir Sénégal ak ñi nekkul Sénégal ndigal jóge de di Boubacar Ibnu Alaaji Mansour xalif général Tijaan yi jaar ci rakkam bi xaritam bi soppeem bi Cheikh Sidi Alhaaji Maalik Ibnu Alhaaji Abdul Aziz jaar ci Sidi Boubacar njool fuuta ngeen min ko ak njabootu Cheikh Sidi Al Hadj Malick yëpp waaye nag jëm ci jullit yëpp jumaa ji seen maam Cheikh Sidi Al Hadj daan jullee daan dajale muqaddam ya ñëpp ci bis bi xam ne moo doon bis rasulullah salaatu wasalaam di gàmm jumaa jooju rek incha allah li nu bëgg jullit yëpp yéen ñëpp ñi ci Sénégal ak ñi ci ak ñi ci bitim ku nekk dugalaat sa loxo ci am na nag ñuy wax xaalis bi yëpp yem na waaye mbiru liggéey du lépp du yem nu bëgg jullit yi xarit yi sopp yi ñëpp ñu yaakaar sunu borom tabaraka wa taala sopp sa nga ba tëdd ci Madiinatul Munawwara yéen ñëpp ngeen dugalaat ak seen loxo nag ku joxe woon waaye laa baatal sa poos ku jëri woon waa jënd leen ko waay ndax li ñu bëgg di ko ñaan yàlla mooy Sidi Aboubacar ibnu Alaaji Mansour xalif général Tijaay ànd ak rakkam yi ak doomam yi ak jullit yi ñun ñëpp nu àndandoo inauguré jumaa jooju waaye nag wax rek du ko yeggal pour jumaa ji yegg déedéet da ngeen di dugalaat seen loxo ne ñëpp dugalaat seen loxo ci jumaa ji incha allah ndii mooy ndigal li jóge Sidi Aboubacar ibnu al ci la xare badar ci la abu lahab daanoo looloo indi xare uxud abu lahab ci la daanoo xare badar ci la moom moom foofu mam si sidaaji maay mi ngi lay nettali mu ne keroog bi muy jugee màkka dinañ ko ñëw ci bunt bi dina ko indi bi muy jugee màkka dem medinatul munawara bi muy jugee màkka di dem medina xale yi jugoon pour rey yonent bi sallallahu alayhi wa jug na dañ koy rey xale yi bi yonent bi taree yaasin wal quraanil hakim jéggi leen xale yi yëpp dañoo nelaw alaaji Maalik ñoom la wax dafa ne man massoo turbo minhum xayra zi salami man képp ki nga xam ne massoo laal na la ak turbo suuf bi yonent bi yoroon jàng ci yaasin sotti leen ko minhum si ñoom ñooñu xayrun amul kenn koo xam ne zi salami dugg nga ci lislaam ñoom ñëpp xare Badar la ñu daanu ndax yonent bi dafa leen jéggi ñu mer premier xare ñoom ñëpp takk xare départ ñëw xale yooyu yëpp daanu nañu xare badar keroog ku suuf si laaloon daanu nga xare badar looloo waral ndekete xare badar yonent bi gañe na ko lu jiitu sax ñu ñuy xare xare badar mbokk yi nañ ci ñëw intégral lu gën a yaatu suñu beneen émission bu bokkul ak bii ndax bii bëgguñu ko raxee dara mbokk yi ñu ngi leen di euh, ziaraat di leen baalu àq di leen baal di ñaan yàlla boole ñu baal di nuyu bu baax Serigne kër Ngom yàlla na yàlla yàggal taxawaay bi yàlla barkeel bi jaay Seydouna Mohamed di nuyu suñu Serigne Serigne Papa Abdou Euh, ibnu Serigne Sidi Ahmed salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. nga juddoo kamakata manga yaro camakata manga gada ya madina